décret militaire loolu la yow soo ñëwee pour nekk nation bi vert jaune rouge bi ñoo ma ko bokk vert jaune rouge bi ñoo ma ko bokk ñoo bokk Serigne Touba bokk Baye Niass bokk El Hadj Malick bokk Insa Ibn Mariama Sénégal looloo fi am mais nit ñi ñëw naan da ngay jéemal ñëw sénégalais yi ngay jaar kon di nga rey sénégalais yi te man ngay njëkk a rey man awa chef kuy sama chef mooy sunu borom. commandant bi dafa ñëw non commandant bi boo xoolee xam ne pacifique la parce que lu yoon du yoon lu dul yoon yow booy dafa ëpp waay dafa ëpp yéen xam ngeen ne lii dafa ëpp yéen Macky Sall ñun ñu ànd ak moom 2011 2012 dem guerre Ablaye Wade ba mu nekk président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 waali waali waali kaay ba jël moto bi kaay ba jël moto bi ñu normal Manja, manja mbaa jaade li ko demal gars si loolu la ñuy mujjee. voilà yéen a ngi gis noonu Sokana mu ngi noonu di wax ak euh, policier bi Sokana mu ngi noonu di wax ak euh, policier bi noonu alors ngeen di gis noonu ñu fas yéene dem sa tribunal ndax dinañu bàyyi ñu dugg ñu fas yéene dem sa tribunal parce que fi mu ne dañu rek euh, bloqué fi nga xamante rek moom mooy tali bi maître Etienne euh, John mu ngi noonu wàcc na si otom. est-ce que doo jël ñu dem tribunal. ñu dem tribunal bi waxatu. ah tribunal am na ñu fa ne dem gérer fi. ah tribunal am na ñu fa ne. mooy bañ a def. loolu duñu ko. sànq seen yëpp rek ak image la ngi noonu. yéen a ngi gis. du yoon du yoon jàmm nañ ko ñoti du yoon. magu sooy lii la yéen ñoo yàq Sénégal ñoom jeexal nañ yéen a xam am niir Sénégal yéen a war a mën a defar Sénégal du paa yële paa yële dañoo jeexal jaamu yàlla moo leen dese ñoom lay divisé lu baax lu bon ñoom ñoo koy def.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 du yoon li ñuy xeex ñu ñëpp ko bokk. waaw. waaw. dégg nga. non jéeg ñoo ànd de parce que bu. jee ñoo ànd mu ngi fi ñoo ànd xaaral ma jël jàmboo ci boppam xaaral. wol jee wol jee waaw. allo xaaral xaaral xaaral eh Dieng. xaaral dañuy sànni xeer xaaral xaaral allo xaaral dañuy sànni xeer xaaral. Goed, laat ik